Touba ak manqué ndox mi fi nekk ku ne xam na ne agresseurs yi nekk ci dëkk bi yëpp même 4 x yi doon daw di dajji magasin jàmbur yi maîtriser nañ leen yóbbu leen 100 mètres malfaiteurs yëpp parce que jàpp nañ leen mais kuy tëji woon mënoo koo jàpp point de interrogation la Macky Sall moo nekk ci ndox mi gëm na ne Touba woon ginnaaw gin ko woon ginnaaw parce que ànd ñoo moom xalaat dañ koo bañ moo tax moom it lépp lu man ci toroxal ñu dina ko def mais mi ngi am ci loolu ah màggalu Touba koo laaj cent mille francs pour say gan am ndox da koy joxe man koñ bii ma dëkk ba nii may waxee yow ñu ngi yor sareetu mbaam di root te moo fii ak jumaa ja presque un kilomètre la kon bu ñu demee ci ruq yi gën a reculer kon ñooñu ñi ngi dee man sama kër diiraa maggal sareetu mbaam laay roote ba jamono ji may wax ak yow te bu ñu ma laajoon man cinq cent mille personnel man ma joxe ko pour am ndox mais nañu wax nit ñi dëgg Macky Sall mais bàyyil woon yi ngay tëj ñu comme ministre bi ñëw na ne ndoxum Touba dinañ ci waxtaan li ñu bëgg mooy ñu fay ko mais nañ ko fay te nit ñi naan sangu deuxième capital économie ci làmmeñ la yem ci làmmeñ la yem bu fekkee nag état bi li muy gagné biir Touba loolu Touba mooy deuxième capital économie parce que li mu fiy gagné à part Dakar du ko gagné feneen mais li mu fiy gagné bu ko coppoon delloowaat ko ci dëkk bi rek jafe-jafe yi yëpp du am waaye Macky dafa gëm ne fu Touba amee ndam moom mu am defet ci réew moo xam ne dañ ko ko jox jox ko suñuy milliards jox ko suñu lépp ne ko toppatoo ñu loolu nag def na ko ba pare li ci gën a naqari nag dañ naan dañ naan bu ko wax ndax lii xew moom ñëpp teg ci seen bët xam ne du dëgg du yoon waaye kenn ñemewu ko wax dolli ci dañuy ñëw nag nela lépp mujj léegi lépp ndox ndox mi am na yow deuxième capitale économie mais ndox ndox ndox mi ci kaw ndox mi taa mënoo koo évacuer mi suulu mënoo koo sulli nit ñi naan ci sangu deuxième capitale économie boobu ci làmmeñ la yem ak ñun ñun ñun ñi nga xam ne dañuy liggéey nekk ay directeur d'entreprise yor ay société xam nañu Touba à part Dakar moo ci topp Mbuur topp ci tey mairie bii fi nekk nga xam ne royaume la dictature la parce que damay wax ne mbooloo buñ àndee di dox bu buñ dëppee ñi mujjoon ginnaaw ñooy jiitu waaye Abdoulaat Ka wërta yor mairie Touba mérito wu ko parce que daa amul xam-xam bi ab dëkk doo ko jox nit ngir sama mbokk la wala ngir sama taalibe la loolu jaadu wut li jaadu mooy ku ko xam-xamam mate ñu jox ko ko mais Abdoulaat Ka mérito wul yor mairie Touba alxaqu sabitu wa amal baatinu koo xam ne buy wax complexe yaakaar na ne booxul français jàngut taxaw naan un kilo sikir yoo wax yoo xam ne sëñ bi damaa nekk Corée du Sud di ko seetaan benn waaye di laaj naan ma kii lu muy wax ma ne ko kii mooy deuxième comédien Sénégal bëgguma ko wax ne ku kii dara la fa parce que loolu gàcce féetewu ko kaw aw turam mënu koo bind mais du jaar-jaar bi du xam-xam bi du bëgg ji dëkk bi ñu jox ko dëkk bi attanut ay dàllam fépp fu mu taxawee rek yaakaar na ne fii dafaa war a jëlee xaalis te budget bi ci nit ñi lañ koy jëlee man mii damay def trent millions ci Touba par année samay entreprise damay fay li ma war a fay dama koy fay màggal oto bu fi dugg 150 mille lay fay oto bu ndaw bi fi dugg cent quinze mille sareet yi ngay gis li fi nekk mën na quatre mille sareet sareet bu nekk bu fayee quinze mille francs mais loolu ñaata la ci million ku sa gis oto mbalit corne sa buntu kër ne mbalit mi laay jël mais même ñun ñi nga xam ne dañuy dugal dara ci maire bi dañoo war a woo ñu ciy waxtaan su fekkee defuñu ko ngir la sëñ Saaliw tegoon dugg ne kër sëñ Tuubaa gu nekk nan fa jël kenn ñu seere maire bi sax man damay wax ne man économiquement amul personne bu taxaw Touba bu loo xam ne ëpp nga ma looy dugal ci mairie Touba ba pare man ki ma jur sëñ Touba ko yar ci loxoom doomi sañ Touba yar ma may économiste si nekk ci dëkk bi di di employé lu mat presque 60 ndaw ñu jël ay gone yoo xam ne nu ngu ñëw liggéey yagar yagar yi topp ministres yi di leen ngàbbal seeni i dàll yor ñaari portable li pour lèvre say tuñ xeesal ko wut sa euh, benn jasneer sol ko di fengali kilifa yi kër kilifa goo dugg ne gi wax na la léegi wax na la lee tax ñu jël leen teg ci maire bi jël liggéeykat yi delloo ginnaaw nanu dimbali liggéeykat yi wax ak liggéeykat yi parce que ñun amuñu benn intérêt lu dul ndamul sëñ Tuubaa mooy su ndam man nag heure bu ma noppee wax dëgg damay dee celli mag du nelaw suñu noppi gii dañoo yor yat yatu baax te jege muus mi war a sàcc jën wi ñu seen ko